Nah, ali dama koy bëgg nak bo toge ba mu yag ñew du xant yo xam nga da pen da nga di sama xarit dañoo yag am na xalé ba ndaw deug la bayan ci jamm nak ay sant bu baaxa baaxa baax alhamdullilah lo def ak koor gi koor gi xana ni koy doxale rek ah ay yalla xam nga dafa noppale wa dafa noppale so demé mars ñew da ngay tok rek raaj lepp nak ngon ci la nak mom lo rek mo tax ba koor gi neex ma lool la mais yaang ci jamm mang ci jamm alhamdullilah patas sama nijaay mi ngi fari xam nga ko mom mm-hmm. koor gi su ñewé dana las mom tank kër gu waccu mom du jóg bëree xadar tek ci nak koor gi moom dañuy yëngu ah doyna na man dama damaa jommi jommi da la def man ba jommi waxee deug la man de doyna man way koor mom yàggul waaw xam nga mettiwul lépp nag ngoon si la lepp nag dañuy toggandoor moom moo tax man ko neex moo tax mun ñee jéeg yëpp ko ci nak ah ñepp ko yak man mi fim mu suma nii dem marché suma ñewé paré na damay tëdd na la ngoon nga doga def lu ma doga def limay def waaba maanaam jànkalante ne maa bëgg ñu waxtaan ci mbirum natt bi laa bëgg ñu waxtaan na xam nga koor gi mi ngi ñëw sama lip, tek nga xam nga sama nijaay man yaa ma ah sama xare nga waaye koor gi jàpp na la de koor gi ngi ñëw koor gi jàpp na la eh koor gi koor gi sama doomu nday nga ci man nga ma war la koo teggil yoral tamit xam nga du la jafe nag waaw moom moom am na moom loolu du la jafe bu desee ñetti fan ah doy na waar incha allah dinaa la teggil ah kenn daal la ma jaaxal sama benn xarit faali hmm? moom daal natt bi ba mu ci bokkee ba léegi ba mu teggee nattu waaye loolu dinaa ko lijjanti moom ah loolu man man xam nga man loolu moo la maaleykum ah, salaam yow na nga def namu naal de maa ngi ci jàmm bu baax a baax am jàmm bu baax rek alhamdulilah alhamdulilah incha allah ah ana pataas mi ngi ca kër ga. ah boo dàggee ma ko waay. ko dégg bu baax ko baax maa ngi ci biir noppalu. waaw kay maa ngi ci biir noppalu. Fally xam naa dinaa fa dem moom. ah war nga cee wax ak moom waxal ak moom daal natt normal. ah daal yéen a waa daal gi mi ngi egsi te soxla yi dafa bari. dafa bari su ko defee ma teggil la. ah amul benn problème. naa la teggil amul benn problème. Mhm. jàng nag war nañoo waxtaan de. Mhm. Mm, man de damaa jóg bi ma sama ay. Hmm. xale yi ñu ko bëri di ko raasaat. ay yow da ngaa fekkoon da ngaa loqati sama lañ ci ñun fi mu toll nii ban sëy la ñuy sëy ah xale yi boo xefee ñu nangu suñ jëkkër yi de foo ne. te nangu nañ leen ba pare sax toogatuñ taxawul man moom sama bos toogul taxawul ay tànkam laalu suuf. ah man de dama la ko Zane yaa ma daa ëmbal gone ka. ëmbal. subhanallah. dama la ko rusoon xaw ma fu ma koy yuuxoo. pataas sa pataas yow. ah. ëmbal moom moom moom moom moom. jóg hmm, waaye nag. jàkk war nañoo génnee suñuy arme de. Hmm. war nañ xoolaat suñu bopp de. kon xam nga loolu. Hmm. ñun ba ñu waree changer garde-robe dafa yàgg. ah doy na waar. génne waat yi nekkoon ci biir léegi. lalaale yi génn dara yu weex yi génn. Ah. cuuraay yi génn. Hmm. yow Cheikh cuuraay mi nekk fi yor ruq jeeg ji yor bagage yu baax nag tubaarkàlla. waaw kook fu mu ne. daay lay la laa moo tax xam naa ne xale yi fi ñu téye ñi waxuñu ko waaye ñun naa bu ñu jaaree ci seex. dina ñëwaat ci suñuy loxo ah man da dama jommi man man na patas dal jaaxal na ma la la xam nga nuñ koy defé xeexu suuf lañ patas ni ni ñi defante ñom du ay wax jëf la hmm. déglu ma rek ah kon baax na ba lu mu doom doom mbokk chrétien yi ñu bokkal andando ñom ci koor nga dëgg de ay way gis nga yalla lu muy def de dom day ya, ah macha allah ah macha allah loolu kay mom lu bax la mom ren salam. salaam naka waa sant ya, hmm, maaleykum la waxtaan waxtaan ma oh mun loo tax kay ba gisuma la kër ga dëgg la kay maa ngi ah bayang. Bayang Diagne sorewul de ah li may waxtaan ak sa tante la ma romb nii waaye xam naa bu nekkul ci biir di nelaw dina ma jaaxal. man man daa am ku ma gis bu ku dugg ga waaye noonu ak Baye de. Hmm, Baye Diagne seen kër. xaaral ma xool. ah waaw. Ah. yow sa romb fii sa gi nii matagul cinq minutes. Eh, waaw. ba Baye Diagne la. Baye nekk bi. kii ma gis mu dugg néeg xale jigéen bi Baye Diagne la. Baye Diagne man parce que sa Baye waaw jaañ ba ci biir nekk xale kaay nañ dem weeru koor gi ah loolu du ma ko fekk Fadal. jibi génnal maaleykum ba. sa jabar ji nga xamal lew na la ci jibi. xool ko. jaañ sa maa ngi ci biir gi ndekete yaa ngi fii kii yow la. dee damay génn. ñëwal nag balaa maa xam ne nag tey moom jeeg pire nga nga wane sa bopp. Ah waaw ñëwal ci biti ñëwal. <laughs> man kese dégg moom. Eh, waaw ñëwal ci biir. Eh, kan ab. Fatas. laay yow ku ñuy jiñ ba tukki. nekkuma fi la waa génnal. yow ñëwal. eh génnal. nekkuma fi ni kay kay kay kay kay yow ñëwal rek. kay kay kay. nekkuma fi nekkuma fi. kay yow kay ni kay ñëwal rek. jaajëf moo fi indi nekkuma fi sax man nekkuma fi. waaw ah. yaa moo fi indi. waa ñëwal. Diagne mi moom moo wax nañ ñëw def. fii ku ne jaaral nii waaw jaaral nii rek. du ma ko defati baal ba. waa ñëwal ba ñëwal ba. yow yaa Fatas wala benn. ah oui ah dama la yor ah jàll. muy sama dem muy ma muy ma muy ma. jàll wala baal ma baal. ah donc baal ma baal de soxlawuñu benn rétro. gis nga jigéen boo mënul da ngay bàyyi. waaw ñun dañoo xew de. nekk bii de mooy tànganaa. yéen moom da ngeen amul benn rafet. fii nekkul tànganaa fii mooy tànganaa nekk bii mooy tànganaa la ndugg la leen bii rek ak bii. amul génn amul génn xaaral ndugg di génnaat. yéen yéen man da ngeen maa yéen yéen daal war ngeen góor góor yi war a gis war ngeen ko sëlay yéen. yéen sëlay ngeen sëlay ba seen kanam ndiroog sëlay. ñoo a ñoo tey ñoo tey ñoo tey ñoo tey yëpp ma ci biir yëpp ma ci biir. wala doo yëpp ma ci biir. waaw yëpp ma ci biir. waaw yëpp ma wuyaayoo wuyaayoo. Fenda. Fenda. Hmm, man soxla soxla naa soxla naa ku ma rotoroo noo ma rotoroo.